bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa asxaabihi altayibin altahirin wa man tabaahum bi ixsaan ila yawmi ddin bokki julli yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi dellu si waat den nuyu den siyaara den balu aq den ndokkeel ci weeru safar wi ak màgg bis màgg bi nga xam ne ci lañuy moom la ñuy dëgmal di nafaraat eh, jaar jaari yi eh, bis bi maanaam taarixu bis bi daal waxoon nañ ci jataay bi weesu ne eh, sëriñ bi joxe moo joxe ndigal bi mu nekkee njaareem ne bis bi nga xam ne la la woon Mbàkke Baar yi dem ci tukkeem bu màgg bu tedd boobee di fukki fan juróom-ñett ci weeru safar saa yu ñëwatee nañ ko ci santale yàlla maanaam nañ ko màggal màggal ko ngir santle ko ci yàlla ci xéewal yi mu ko defal ci sababu sukki boobu nga xam ne lépp lu mu am ci boroomam taalibe yi itam am jariñoo ko ci moom mi ngi sababoo ci tukki boobu mu ci sant yàlla nag digal mboolem ñu aji ci moom ñëpp rek ak ñi nga xam ñëpp seen mbég mbégam seen mbég la ñu sant ko ci yàlla ci def ay bernde ñu daa ko def nag saa yu bis bi ñëwee taalibe yëpp di ko def ci seeni kër def ko bisub mbég te bisub bernde Eh, di ca tuur deret kenn ku nekk ak fa kàttanam toll di ca def ay bernde di ko seddale ak di ko jariñoo lool la def ci diirub li sëriñ bi nekk njaareem ginnaaw bi mu ko diglee di ko wéyalit ci diirub li Cheikh Mouhamad Moustapha nekk xalifa ba ni mu ñibbis waa wujjee boroomam bi nga xamee nag Cheikh Mouhamad Fadal jël nekk na ci xila wuutu na ko ci xilaafa gi moom Cheikh Mouhamad Euh, ci 1945 euh, bañ koy bañ ci tegee mel na at atum ñaareel ma mooy ci 1947 la Serigne Mouhamadou Fadel joxe woo taalibe waa kilifa ci Touba daje ñoom waxtaan ak ñoom ne leen ndigal li sëriñ bi digle woon ñu di ko màggalal bisub fukki fan juróom-ñett ci weeru diggiwu gàmmo ci at mu nekk ndigal loolee moom la am yéene buñ ko dee defati ñu daje Touba defe ko fi ñi mën a ñëw ñëpp daal ñu ñëw Touba dajaloo ci Touba di ko fi defee ngir njariñ di gën a yaatu nee loolu moom la bëgg di tax mu di ko defit nee na weesuwut bëgg a dàkk ngërëmul sëriñ bi rek waaw te mooy te te loolu mooy kon bis bi nga xam ne sëriñ bee ko moo ko digle woon ñu di ko màggal mu mel ne bu doon tabax sëriñ bee tego defoon fondation bi nee tabax boobee la bëgg a yàggale moo tax mu digle ne nañuy daje Touba di ko fi defee ndax mu gën a yaatu ngir dàkk ci ngërëmul sëriñ bi nee na loolu moo tax mu di ko digle ba dàkk ci ngërëmul sëriñ bi waaye itam di ci faggul taalibe yëpp. yaa euh, texek àdduna ak gu àllaaxira loolu itam na mi ngi ko ci mi ngi ko ci yaakaar di ko ci fàggul bi yëpp taalibe yi wisi woote bi yëpp ci at mu ne euh, ngi leen di fàggul di leen ci fàggul di ci yaakaar yàlla di ko ci ñaan ci barkeb Sëriñ mu defal leen ci texek àdduna ak gu waaye nag nee na boobu ak ndigal li mi ngi ko teg mi ngi ko mi ngi ko tënk na ko ci sàttub lépp buñ ko dee def lenn lu naqari yàlla bu mu ci am bu fi kenn def lu xaraam bu fi kenn def lu ñu bu fi kenn fo bu kenn caaxaan bu kenn def lu dëppoowut ak sunna lépp nañ ko teg ci dëgg teg ko ci jaamu yàlla gu sell teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi teg ko ci moytu lépp luy caaxaan ak fo ak folklore ak i ak i neen nañ ko ci moytu nee na loolu ci la tënk ndigal li ci la tënkit yaakaar jim ci am ci ne suñu doom dana ci defal taalibe yi li ñu leen di fàggul li mu leen ci bëggal ci texeeg àdduna gu àlaxira mu ne nag kon mm, nañ koy màggale jàng alquraanu karim ci bis bi ginnaaw ginnaaw la sëriñ bi digle woon muy bernde yi ñu defee bernde yi ne ko sëriñ bi diglee mooy kenn ku nekk fu kattam toll ci lu mën a rey la ko tàmbale ci ganaar ba ci gëléem euh, bu ko defee ba def bernde yi na ca boole nag jàng alxuraanul karim ak di jàng ay xasaayit ak tudd yàlla ci mboolem xeeti tudd yàlla yëpp rek euh, ak di jëf lépp loo xam ne lu yàlla digle la mu dëppoog euh, yoon ta euh, lu yàlla digle te mooy lu dëppoog yoon rek lu mel ni jokkuk bokk ak ziyaare nit ñu baax ñi ak joxe aw ñam ak lépp loo xam ne rek mel na noonu te mooy lépp loo xam ne rek jëf ju baax la yoo xam ne yàlla moo ko digle ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu def bu ñu ko defee ci bis bi rek nee na loolu dugg na ci biir màggal gi bu fekkee ne def nañ ko ci def definu yéene cee sant yàlla sant le ci yàlla sëriñ bi euh, sant ci bi yàlla ci euh, xéwal yi mu ko defal ci bis boobu kon digal li daal sax moom Fadil mi ngi ko joxe maanaam màggal gi ñu njëkk a màggal daje daje bi njëkk a daje Touba màggal ko ñu ngi ko defoon ci bisub gaaw ci fukki fan ak benn ci weeru wi jëkk ci atum mm, tubaab bi mooy 11 janvier 1947 la 11 gaaw 11 janvier samedi 11 janvier 1947 mooy màggal gi ñu njëkk a daje Touba màggal ko fi ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Fadel ngir yaatal euh, ndigalu sëriñ ba bi mu digle woon ci màggal gi mi ngi dëppoo woon na kon fukki gaaw di fukki fan juróom-ñett ci weeru diggiwu gàmmo muy safar ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mooy le 18 safar 1366 ci gàddaay bi dëppoog bisub gaaw lañ njëkk a dajee Touba màggal ngir màggal bisub fukki fan juróom-ñett ci ndigal Cheikh moo Fadil yoo xam ne ci sat yee ko tënk ak ci melokaan wee mu ne nañ koy defe noonu kon daal loolu moo daal di nekk nag euh, ak yokkute gu rëy rëy akuk so akuk yaatal goo xam ne am na ci màggal gi goo xam ne ba fi mu nekk nii njariñ yi mi ngi gën di law di gën a yaatu di gën a rëy eh, di gën a firndeel yërmandey sunu boroom ak njariñ li nga xam ne moom la ànd ak Sëriñ Tuubaa ak jëfandigalam àndal taqool muy njariñ loo xam ne léegi weesu na sax ñi tudd ñi nga xam ne ñooy taalibe murid yi waaye képp kuy jullit eh, dëkk senegal baa nga ne feneen sax ma njëriñ ma ñu dul julli sax njëriñ la mais léegi ma àgg ci ñoom ndax li mu làmboo ci ay njëriñ ci wàllu koom-koom ak ci wàllu xam ak ci wàllu jaxasoog nit ñi mooy social ak ci yeneen wàll yi yëpp rek njëriñ yu yaatu yi mu làmboo loolu yëpp woote bi ak daje gi Tuubaa moo ko jur kon loolu la ma waxoon ne da ci mottali tabax bi sëriñ bi fondement woon loolu leer na nañ ci yaatalu jëf ji ak di yaatu njariñ la kon yashhadu manaafi'a lahum ji yàlla waxoon ci aj loolu itam feeñ na ci màggal kon yàlla na suñu borom boole nangul euh, boole ñu dëppaleeg ngërëmul sëriñ bi ñu am ñu am pas-pas ak kàttanu jëfee ndigal lim digle ci bisu fukki fara ak juróom ci weeru safar te lam ca fa lam ca euh, aj lépp moom sëriñ bi ak mu fàddu aj yëpp itam suñu borom defal na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.